kum lan. non waxtaan leen seen waxtaan ki maa andi tey. mais mais mais xam naa ne de suñu kër gi àllaaji. ki ah. maa andi tey mi ngi kër mi ngi mel ni kër yaa ma góor sekk de. ngéwal laa andi ngéwal. Ah, waaw <laughs> waxtaan leen seen waxtaan suñu kër gi kër ñoom mbay gay fay daa la yem. waaw ak ñoom daam seen. ak ñoom daam seen. moo yéen a ma yéen a ma sas andi gi rek. waaw. ma jiital ay sabara ki tam waxtaan leen seen waxtaan ki ma andi tey. lii lan la nii. ki ma andi laay wax ma looloo ma ñor. yéen waxtaan leen seen waxtaan yow wér nga. ah kay ah ay sabar ki da nga koy bañ Sénégal yow. non non ah eh, bañuma sabar. raasa xiis sabar yee bari Ah, waaw lii nag tumbaa la. ah xam naa ne coombaay la indi tey. rimbax papax. coombaay boobu coombaay xewi na. sa waa ji moo sa waa ji moo yàgg. kan waaw ma ay rimbax papax. ay rimbax papax saa yow nag da nga def saa yow est-ce que atam moom bii. ah <laughs> li ci mbëng mbëng dee ko pax. waaw <laughs> boobu. yaa ko naan yaa ko war a pax mbaay. mais nag wax si lu am solo waxal sa wax. waaw waxi jàmbur di wax dafa xew Sénégal sax. wax jooju waxal sa wax waxi jàmbur mu ne ndax pax mi du paxum njaan. am na ko <laughs> ko eh. am na ko ko wax an xay paxum jaan la an kay paxum jaan an kay paxum jaan xanaa xamoo wax jullu côté yàgg na Sénégal waaw yooyu yëpp na fi ay rëg-rëg bu jaan côté wax wala wax ay rëg-rëg bu jaan eh booy boobu moom waxatuñu wax mais rëg-rëg bu jaan fecc bu bon la a ah déedéet bu jaan bu jaan bu kay feccum suuf moomu nga daan wàcc ma naan rëg rëg Abuja Abuja ku nekk ko mënoon de. après mu ne Abuja Abuja amoo. waaw Abuja Abuja amoo Abuja Abuja. Sénégal ñoo non loolu remix bi la woon. ki ma andi tey yàgg ci waxu Kunkan. waaw dëgg la Abuja amoo. ci moom laa bëgg ñu wax benn 30 secondes balaa ma ko introduire ki ma andi. waaw dañoo xam kan. waaw ci laay nekk introduction bi laa nekk. may développer de conclure nag. waaw waxal waxal. saa kooku sa xarit la alaaji sa xarit la. Ah. ñun Sénégal kay ñëpp suñu xarit lañ. parce que xam nga lu tax ñu xaritoog moom sax ñun. waaw baax gi mu baax ah. yaatu gi mu yaatu. mais nag xaaral ma xamal leen benn affaire ataaya ji. waaw nan ko naan balaa ñoo ñuy ñëw lii li ma compté ay sabar mënu ma leen. ataaya eh, da nga leen di siis. lu am doole ko war a tëgg lii. affaire la rek wuy ma xoolal déglul déglul noo koy joxe kot la. déedéet baa ñu xeel nu naan. ñu naan ba pare. waaw kay waaw xel kon. ñuy soog a dugg muy doog a dégg kii. cum day wane boppam mooy Samsidine kii mooy Bambaado. validé ndax buum bii lay gan gi sax alaaji gan gi ma andi tey ngéwal la ah. ndeysaan muy doon ku nga xam ni jom a ngi ci moom ngor a ngi ci moom fit a ngi ci moom yow bokkook dara Karim Wade yow mii lu tax nga wax ko leel bi waaw ak li ngeen sol nii yow Karim bokku leen dara du ngeen déggante temps yi dégg naa yéen a ngi déggante de loolu de ku la ko wax waxul dëgg ah. Karim dégguma Karim ah, yaa ngi may dégg waaw gis nga yaay yaay waaw dafa am solo ci doomu aadama dëgg la yaay bu la ñaanalee nga dem dëgg la hmm. boo làqee ngërëmam dem hmm. dëgg la dëgg naa dëgg de te ki ma andi tey dafa bëggoon yaayam ndeysaan dëgg la làq ngërëmu ndeyam nag alaaji am rëcc na la ndax ndayam da koo ñaanal ba xëy génn at bu jox kii day ko amul de ak yaa naqaree ñaanal ku ko amul de waaw kenn mënu laa ñaanal dëgg la fi nga jàpp ko jox day xalam day xalam jàppal fi nga jàpp yow bu ko bàyyi seex naan ne nañ leen naan la jox war ga yi waaw nañ na waa galle ma waaw waaw yaa ngi dégg alaaji waaw dafa am ñaanu nday dëgg la moo tax lu mu jaaxla jaaxla jaaxla da ciy génn. toolam am na la bëgg a laaj nag. Ah. ku sa ndey dee nag ku lay ñaanal. yàlla si yow yaa koy ñaanal. après moom moom dina la ñaanal. Mm-hmm. waaw moom bu xolam seddee da lay ñaanal xam nga ñun ñett ñi ñëpp suñu yaay daa daa dee. daa dee waaw. ku ñu war a ñaanal ñun. sa yow kay loolooy problème bi. suñu rakk yaay yaa ngi man de ah. kon de bu demul woon mi. de dem. ah man de Fatou Abang may ñaanal. tey dem sama magu yaay. waaw yaay amoon na mag man man sama yaay rakkam a ngi fi mu ngi lay ñaana waaw mi ngi waaw kay xamoo mag yaay la kon sama yaay ngi fi di dund kon waaw léegi koo tolloon ci mba ci ki ma andi waaw waaw ci li mu amee ñaan waajur ba lu mu lëndëm lëndëm day xuus jàll loolu ku ko wayati ndeysaan lu mu lëndëm lëndëm damay xuus jàll olof la rek boo tegee xamatuma ku ko way na may tëb jéggi mu doon ko nga xam ne xaritu artiste yëpp la saa waaw moom moom ngay indi xaritu artiste comédien yi. waaw artiste musicien yi. waaw rappeurs yi. waaw sportif yi. waaw xaritu Sénégal la. moom moom ndax dafa bëri jàmm. kon koo koy Sénégal. xam nga koo koy non damay bàyyi son bi introduire ko mu defal ma playback muy doog a yegg si. li ma Apulaay li ma ataaya neex na dooleel ma kooku. validé validé. kay kay kay kay kay kay dañuy laaj kay yow toogal toogal salaam toogal booy yow booy booy yow booy booy taxawal na la booy booy taxawal na booy. kay kay fii kay fii booy booy toogal siis ba la ci ginnaaw. waaw ma siidi kee laa dañu ma yoon si. yow sëgal fii damay laaj sëgal fii. eh Ndiaye bàyyi ma wax. man kay dama leen waxal waxal ak moom yow sa lekk laa gis ci kër gi de. ah bon eh man nañ maa tere lekk. sàmm kii sa lekk la kii fu ma kii fu ma. waaw eh, kay kii ku kii bay lekk bu ma ko wax. gis ba mos a gis. Ah. waaw ah, eh, eh kii fu ma dama eh. sàmm doo coobal ah, kii. bul ma koo waxati. teg maa boo xiifee yow tamit dëgg neexul. déglu ma boo xiifee rek. lekkuma sàmm kii dañ koy sa toog sax maa ngi ay perfusion laa jël. bu bàyyi ba ma dem nga xiif. perfusion doy na woon ñu kanam woon ñu kanam. xam nga dafa am kabanding ah! waaw am kanding waaw ñaar ñëpp ñëw nañu sama kër ak tampang polaire kanding a ngi kabanding am nga yàq wala amoo yàq tesin loolu fi jom ah? jom fi rek lay def sa yàq kaw su la lan la demee noonu yéen dama leen bëgg a jël si ah, kër gi ngoonal validé dañ leen jël yéen béfis lañ leen jël dégg nga béfis non waaw fi ngeen bokk léegi joxal Sidi micro bi merci merci waay jërë ngeen jëf waaye sénégalais nga yow Samb doo gunge kii la ilaha illallah xam nga li may wokk sànq ni ma jox ma ko wala koy waaj a jox oh. ah kontaan naa sama xarit bi. ah sama xarit bi sagal nga ñu. ndeysaan. ndax lii defe naa ne doy na ci ndéwénal. ah, ah, ah am na am nga waaw doy nga doy na ci ndéwénal. sama xarit la yàgg ngeen yéen yàgg nañ am na ku ma jox tey nag. yàgg ngeen mais ko ko wax. ah waaw. ah defe naa ne li ma waxoon. waaw defe naa ne juumuma. juumoo Njaay. kii xaritu ñëpp la. dëgg la. kan nga ne kan. mën a xaritu ñëpp la. Ah. la waaw. te defe naa ni mu meloon ci yaayam it la dëggan defe naa ne umpu leen moo tax ma introduire na doom ji dafa war a am ñaanu ndey ndeysaan mhm. salaam kontaan nañ ci ñëw gi nga ñëw ndeysaan kontaan nañu kontaan nañu yow fii yow fii sa kër la tey laa ko woo téléphone na ko salaam ñoo bëgg nga jox waa Sénégal ndéwénal mhm. mu ne Cheikh wax ma ñaata sabar nga soxla wax ma xalamkat boo soxla wax ma loo soxla laaju ma leen dërëm te dinaa ñëw incha ngir sénégalais yi ak yéen dalal ak jàmm nuyoo Sénégal li nga nuyoo gaa baax na mais mën ngaa nuyoowaat benn façon nuyoo la xoole euh, waa Ngonal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di am mbégte lool ci invitation bi fay nañ la Diallo Diéry sànq bi nga may introduire wóor na yàlla ñëpp nee nañ Salam Diallo moo dàq jooy ci Sénégal waaw waaye tuutuma départ ndeysaan da ngaa sa yaay nag loolu moom Sénégal xam ne non yéen ñëpp bëgg seen yaay mais yow waaw yéen ngeen baax Euh, xam nga li tax mënuma leen euh, bañal dara. Mhm. ba ngeen di njëkk def seen émission. dama fa ameen coow lu rëy rëy coow boo xam ne ka sama kaso xajoon na ci. Mhm. mu ci benn waay bu ñu waxoon dama ko génneel pistolet. Mhm. ngeen raxas ma ci ba ma set wicc. ndeysaan ca jamono yooyu. waaw ci loo leen yëgul. procureur bi fi nekkoon damaa tase ak ñoom. mu ne ma gërëmal ña la invité woon ndax da ngaa seetal sa der keroog. ndeysaan procureur ci boppam. barke Serigne Sall. ndeysaan ndeysaan muy nag ñu xam ni yéen. société bi ngeen fi nekkal. di ngeen kaf di ngeen ree waaye di ngeen leeral lu nëbbu. di ngeen rafetal lu ñaaw. ndeysaan moo tax tey yàlla moo leen di fey moo tax tey dañuy waxtaan di xawaare ansa. sa waaw ci leeral yooyu amul leneen lu mu war a leeral nii récemment rek comme que nuyoo na ba pare. non non non man dama dama dama dama ko bëgg a laaj juste xam nga salaam dafa tolloon jamono boo xam ni <clears throat> boîte de nuit almadi yi. a sénégalaise moo créé. dëgg la moom dafa moo ci nekkoon roi lu tax bàyyi loolu. bàyyiwuma. non wax naa ne bàyyiwoo. jamono bu nekk ak la xew lay ànd. waaw te nit day nangu jamono dogalu yàlla. Hmm. jamono boobu dama fay fekk samay papa samay nijaay samay moroom yàlla jël ma teg ma seen kaw yàlla ma yàlla baal li may wax. Hmm. bu jamono de dox ñeneen xew da nga leen koy nangu. waaw ah, yii waa li daa dëkk bi. waaw non non muy def. non soirée ah, almadi yi lay wax soirée almadi yi lay wax ci bàyyil ma yeggale bàyyil ma yeggale. waaw non non bugg dama te jamono boobu. dëkk bi hmm. neexoon na neex goo xam ni. da ngay gis artiste buy tëgg sept fois maanaam sept jours sur sept. waaw ñi nga xam ne ñoom la yàlla tey jox ñu téye musique bi. Mhm. ñaari yoon la ñuy joué ci semaine bi wala benn yoon. dëkk bi ci boppam dafa metti nit ki lu mu tal la lekk avant muy dem boîte yow saa kañ nga gëj gëj boîte yàgg na. waaw non man nag du ma dugg boîte. waaw mais des fois di xam nga mën naa xew la ndax sa xarit laa. waaw nga dem pour ma faire plaisir nga ñëw. waaw waali sa xarit la. mu xew la nga dem. waaw mais xam nga ni gëj ngaa gëj ngaa dem. parce que dëkk bi boo dugg boîte sax am na leneen lu lay xoolee. dëgg la. Mm-hmm. te tamit dëkk bi neexatul balaa ngaa tal dem boîte da ngay tal. li nga li nga lekk waaw Salam Diallo li muy def ak Wally Seck li muy def c'est diamétralement opposé kii li muy def. Mm-hmm. chef la ci chef la ci. dëgg la. mën nga dugg déglu musique waal yi duglu déglu euh, li salaam di def nga xam ni c'est deux sons yoo xam ni bokkuñu ça n'a rien mm-hmm. mais moom lu tax jëna jëlatoo initiative xool benn place def ko rendez comme ni nga ko daan defee. mais maa ngi maa ngi maa ngi joué petit théâtre tous les vendredis. waaw événement te day neex di di nga gis eh, eh, image yi. déjà ñoom nee nañ émission lañ koy def. ba pare maa ngi am suma ay contrat mhm. maa ngi am samay contrat mais boo gisee tekk gi. dafa am ci lu ma nekkoon. mooy lii ma leen indil exclusivité waaw depuis trois ans maa ngi def album. tey laa lii nii studio laa jógee barkeb Serigne Saliou. <laughs> studio laa jógee bi may playback sax am na morceau yoo xam ne jàpp ma ko. ndax yéen a fii la ko njëkk a tegee. album bi ñaata ñaata morceau la. 14 morceau la. déet waay. mais xanaa danga ngaa tëggaat. non yu bees tàq ay woykat yu mag ak yu bees. 14 morceau yu bees tàq tàq. barke sëriñ tàngaloo benn ceeb. non non man du ma tàngal rek bokk man ñëpp xam naa ne man du ma. waaw rek rek waroon naa ñëw. yaay salaam góor la man fii rek mën naa fi créer ñetti woy wala ñeent. waaye yow li nga indi woon rek moom rek rek. ah waaw rëg rëg dafa toj aduna. waaw xam nga rëg damay euh, gërëm Fallou Dieng. Hmm. ndax man fecckat laa woon man dama doon fecc clip boo duggee YouTube rek di may fecc lees moo rëccu yaa ma sagal waaye ma naan dee waaw waaw yaa fi njëkk a ñandu de waaw ah, donc xam nga ñandu boobu ñandu moom yaa fi njëkk a dóor sa ndong day baxat a génn nga ñandu ko loolu moom yaa ko waaw loolu ku fi jël moom yaa ko nga ko yaa ko moom waaw sa ah, ah. ci kaw garab yaa ko moom ak yéeg ci kaw garab yaa ko moom waaw amoon nga xam ne la waaw mooy ban la ci boobu xam nga boobu tam pantalon kii moo xawoon papa Wemba. j'aime le vent waaw takk takk balaa sa dën la rëcc fii ko fii la ko daan takk de salaam ceinture bi li ëpp ci ceinture bi yëpp di wadd fii ak wëndeelu am noon fecc wëndeelu boobu mënoon na ko nag ba kott ko fii wëndeelu màgg naan sama doom yi màgg naan bàyyi leen jékki-jékki naan ne xola maa ne ko <laughs> ak bon waaw waaw ndeysaan kon yaa ngi ci quatorze quatorze quatorze morceaux la album bi ak bon la tolloon ci waaw ci album bi lañ ci tolloon ci nga nekkoon di liggéey donc mu ci gërëm tam sama doom ji toog di Sidi Diop waaw daanaa la dinañ ñëw si moom. ndax moom mën na woy booy bi sama loxo la jaar comme ni xale yu bëri jaaree samay loxo. Moussa da nga koo dàq Moussa Dioum. mu Moussa mi ngi fi dafay ñaw. dafa am ah. dafa am dafa am ay. ay ay mi ngi ba tey de tey gën a mën a way. Ah, ma ngay la nga am tailleur ba déedéet dafa am ah. dafa am orchestre boppam. booy booy kii bala nu mu tudd. dafa am orchestre boppam. jëmboori booy jëmboori. soo yëree mu fi indi sànq. waaw. dax dàq ñëw ci Sénégal sol nii yu mel noonu. xam nga bii nag yu riis yi la. ak yii ñii Moussa mbaa dafa sedd la passage. mais eh booy jimboor yi. non non ah, ah, Moussa Moussa muy def noonu la. Moussa day ñëw di ràgg booy yi musique bi dafa war a ànd ak métier. Ah, waaw waaw. waaw bi dafa war a ànd ak métier. yoo xanaa xamoo booy Pape Seck mais. waaw yor na ñetti tissu ñetti yére ensemble. am naa benn ko ko am naa benn tëggkat tama boo xam ni moo dàq defar fourneau ci Sénégal. déet waay. fourneau barke Jumbo. maa la wax lii. <laughs> waaw la la nga cam dinañ la sponsorisé de. waa Jumbo rek dinañ la sponsorisé. <laughs> na nga jimboor kenn da koo mës a ji. Eh, ñun seen <laughs> a baax. waaw sama naar boobu. tudd ñooñu ah, <laughs> rek la. léegi salaam. Uh-huh. salaam waaw kon. léegi album bi. waaw album waaw waaw moo tax ndax dafa am lu mu bëggoon. ñoom ñëpp a ngi ci xam nga waaw. woykat yi nga fi dégg yëpp. ñëpp a ngi fi. defe naa ñaari at a ngi ñu koy tëgg de Sidi ñaari at. ñaari at ngeen tëgg lan. ñuy defar seen album bi di ko defar lépp a ngi ci loolu nag mënoo ko ma lépp man nag yooyu man nag yooyu man bëgguma ko de man musique yi gars yi di jël nii nii nii mm-hmm. man li ma yàgg naa ko wax man ba lay def waaw mm-hmm. dégg naa riig riig bi yaa ko moom wala dégg naa ko ci waale ko moom waaye dañ koy jël moo gën a jël ay reggae ki paccangaa ki yow nag moom lu xew sax nga jël dëgg la yaa ngi fàttali ko sama junni bi taxagum waaw jël lu baax la ñu jël lu baaxul kenn du la dëgg la ah réegu réegu def nga ko ci maa la ko wax dégg ko gisoo sànq bi dul dafa xew ak bu yatta ah waaw yooyu yëpp bu yatta mooy mooy mbay gay fay bi rak mbay dafa neex ah. waaw loo bëgg a leeral foofu daa am lu lëndëm am ku mu àndal ah, man man damaa bëgg balaa ñu ñëw dafa ñëwoon fii ñu leeral affaire balu fetal na ñëwaat fii ñu leeralaat Salam Diallo am ko ko ci internet bi ne da koy dóor dafa xaw ma jabaram xaw ma lan ak lan. Eh, yow bi yoon nag procureur du rax leer mais eh, yooyu. non na leer man yooyu yooyu affaire salaam yooyu. waaw man dootuma ko topp. Hmm. Ah. ah xam nga lu tax ah, dootuma ko ay vidéo salaam a ngi ci taxaw waaju dóor ko ara rël. wala dóor te ko dóor maa dóor alors moom. waaw ah, yaa dóor waaw yaa eh, dóor loolu da doon clip rek da doon am soirée bu mu doon pare. dëgg la non doo nit nag. yow maa ngi doon xam ne yow xam nga ma. moom dama la mais yow yow. yow nga nekk un metteur metteur nga xool seen boobu. naan dëgg bi dóorul. non bi ma ñëwee ñu loxo bi. Euh, euh, association des gardes-côtes du Sénégal. ñoom képp ku ñu tëggal soirée. da ngay def loolu. dañ ko doon defal Waly Seck dañ ko enlevé woon man waaw def ko Pape Diouf def ma ko. man nag sama bos moom xam nga rek Salam Diallo moom salaam kon boobu bës la bu dee budul budul yooyu. Hmm. ci dans la vie. gis naa si ay commentaires yoo xamante ne. yaa ma dàqa xeex yaa ma dàqa xeex. non bàyyi naa man. Ah. man defatuma yooyu. yow barki dem rek gis naa la nga sox benn booy. Eh, defatuma dëgg la dëgg la sox. moom ba ma procureur booyee ne ma booy hmm. gis nga booy. ah, ah woon na la. Ah, waaw waaw woon nañ ma ci xeex bi ne ma booy fii bu fi ñëwati ci affaire xeex. man nga réglé. waaw non yow nag sa loxo dafa gaaw sa. waaw waaw damaa dafa. saa yow fekke naa sa xeex yu bëri bëri. un deux ma yoxosu te xoolal moom. saa day romb wuy ma saa day romb ah mu mu arrêté. salaam am na benn njaago. njaago bi dafa tëye ci koñ bi di dóor rek. xam nga dañ naan xeexu njaago du jeex. waaw benn benn kii ndeysaan benn benn euh, euh, benn benn bambara. waaw am ganu xale. waaw njaago bi dóor ganu xale ba. Eh! bambara bi génn njaago bi na ko boo fi moytuwul dinaa la dóor une semaine. eh. bambara na ko man ngay dóor in semaine njaago bi na ko waaw. bambara na ko baax na. cinq heures ci ngoon la ko bambara commencé di dóor. ba ba ba ba 17 heures. ci la léegi waa koñ ba bu njaa bu bambara bi du dóor njaago bi. waaw waa koñ bi ñëw di àtte bambara bi da ko yenu daw ak moom. waaw waa koñ bi daw balaa ñu ñëw mu dóoraat dewaat bu beneen koñ mu digg xam lu njaago ba wax. Ah. bu ngeen toppee yéen ñëpp du leen ko mën a kar kii day jaar nii kii. ñii jiitu. waaw ñii jiitu ñaw. dóor yaa métti saa defaa ni lëz la ma defoon lëz daa bëggoon a xeex waaye dañ koo dóor mu gis ay vidéo nee na ci la bàyyi xeex gis buñ ko dóoree dina bàq. non man bàyyi xam nga nit ñi. doole doole yëpp nag la nag bu ci gën a métti xeexu gën a ah, am bubu. ah laajal laajal kii. doyen. Oh. Ah! doyen de ba ko Ndiaye jàppee fii. ci télé bi. nu mu demee noonu. doyen grand bu la sol. waaw taxaw ci plateau. waaw sax sunu télé bii daa neex de. reconstitution des faits. naan ah, waaye Louga bi. Diop Moustapha Diop. Ah. moom gërëm na politicien yi. waaw Ndiaye gërëm <laughs> Ndiaye gërëm. Ndiaye di gërëm. li maa ngi gërëm Moustapha Diop. mu naan ko Pikine nga dëkk xaw ma nan nga nga. <laughs> génnal Louga. yow daal Ndiaye xam Ndiaye baay bañ teg musique bi rek mu yoxasu ko tucc. Ndiaye di ko doon waaye sama kër la ñëw naan ma. Euh, Njaay man ko wax mu naan ma euh, day foo man ko lu tax muy foo mu naan ma euh, ku ko dogaloon ci arène bi mu lekk wërsëgam man ko man ko sawaay da ko dóor Maodo da ko dóor. tooyoon naa sax waaye tooy gi daa prolongé. saa waaye am na doole de. waaw. rapport médical da la ko waaw il faut il faut que wala buuba wala jàpp bi nga ko demande d'explication. non demande d'explication lañ ko laaj ci télé bi. <laughs> man nag jot naa Ndiaye <laughs> tamit. waaw jot naa Ndiaye Ndiaye daal nee na moom ndax dëgg yàlla daal. escanté naa ko. waaw waaw xam nga Ndiaye daa def taekwondo. waaw te Ndiaye daa bon ci faar yi la doon dóor. daa def taekwondo. te Ndiaye bu la wowul da xam nga ni nii nit ba mu ne nii nga rëkk ko fii vip. xam nga du toj du dagg karaté yush ci façon karaté def naa ko la ak ah, réew waaw ah, naa benn gel yàlla ma yàlla baal na ma sama soxna kii ah, am na fi ma ànd ak gel bi waaw ma ma jox ko rendez-vous benn boddu nii ma dem boîte fàtte naa ni jox naa ko rendez-vous foofu ma dem boîte ba ànd ak beneen gel booba sa jabar gi nga loolu yàgg na. yàgg na loolu 97 la. ma dugg teggeel ma ànd ba pare ñëw ci moom naa ko qu'est-ce que fait ma hee. ki ma jox laa waaw hee. Eh, tu me respectes. man y a de ces termes. je me prends mon pied je daal di saaga daal xam nga télé la. waaw saaga bon daal moom daal jël na tànkam am na fu mu ko def ci sama benn <laughs> sama waajur sama waajur. déet waay. waaw yow yow yow saaga bi nag metti ma. yow yooyu saaga yu bon. ko ay eh, dab mu ni ma suñu génnee ci biti. Hmm. li nga wax ni nga waxaat ko. waaw yow da nga def ko loolu jigéen bar si yow da invité ko ba pare def ko loolu. waaw déglu ma waaw saa ñu génn ci biti. waaw nekk ci ginnaaw noonu. waaw taximaan yaa ngi toog fii am benn gardien bu toog foofu waaye gardien baa ngi nelaw gisul action bi. jigéen la ba tey jigéen jigéen la de. ma ni ko qu'est-ce laa la wax. mu ne ma répété li nga répété woon. Eh. ma jël sama tànk bi waaw ma ne naan ah, nañu waaw ma ne xaar ma pes yow mi am tut bi la sa yow nga ne xaar nga pes man xaar ma pes nga pes waaw mais gis nga bi ma nee ni gel gel ni la sama loxo ah, ah! tuur na rek ma ma ma ma ma ma ma ma mayoo ko bi non dafa bloqué ma fete gi la téye rek bloqué ma ak tànk ba rek dëpp waaw man j'ai rien compris ma ne mais sa gannaaw nan nga def sa digganteeg yàlla non def ma raak sa gannaaw nu mu def parce que loolu la ko defee da ngay maye fii waa de. waxal rek ma ne attaque sa digganteeg yàlla. salaam xool ma. non xaaral àggalegul xaaral àggal xaw ma wax ma nan la def bii parce que bi muy wax xam naa ko. waaw léegi salaam. barke yàlla ma ne mais non. waaw ma ne mais c'est grave léegi xaaral mu tourné. xam naa ne man am naa doole. non tourné xaaral mu tourné lool waaye déglu ma rek. ma ne nii mu mel ni paaka nga teg fii. waaw ma xam ne kon kii dafa def karaté. waaw léegi ma xool action bi kan moo ko gis car taxi ma léegi yooyu <laughs> xool nii kenn xoolul. waaw. mun ma ti répété wu ah. man ko ay est-ce que xam nga yaa may gaañ. waaw. yaa may gaañ. waaw. nga dundaloon daal sa wax. Eh, jigéen jigéen jigéen. Ah, man ko bàyyi da ngay rey. tuuti sama fi tam. ba jaw man ko bàyyi sama wax yaa may gaañ. waaw mun ma ti répété man ay yaa may gaañ yaa may gaañ. xoolal. waaw billaay wallaay wa taalaay. waaw. mu bàyyi sama loxo bi. Hmm. mu mel ni dama paralysé. waaw loolu doy ko de. waaw mun ma passe par là. ma topp ko mu ne ni benn taxi man bu ubbi taxi bi dugal ma taxi bi ñu ànd xam nga kon konderu face bi nekk fee waaw ñu taxaw rek mu ne taxi man arrête taxi man bi arrête mu génn ma soor ma génn rek mënu ma ne xol <laughs> bàyyi la wax la ma nga dem ah ma dox yow nga nii xamoon naan ma ma dox di def muy hmm. musique ma moom na la mu bàyyi la waaw mu bàyyi ma un jour may joué soirée bàyyi un jour may joué soirée <laughs> tuur jaaj di way rek gis ku sol benn jean ak basket. tànk yi arke xam waaw tànk yi arke waaw dañuy waaw ñun loolu la ñu. nga wàññiwaat nii li may wax yëpp maa ngi xool ma ni mais. moom loolu du may xool ci kaw gis ko rek arrière. waaw. mu ni mu ni nii xool di fecc naa ko. waaw gros gros après la nga def naan. ma arrière yàqam ci soirée ba jeex rek. salaam kay loo tax bi di fecc ay def nii maa la ko wax ay phase ak yooyu. salaam salaam il faut gars yi ñëw ñu def benn morceau continuer waxtaan bi. waaw waaw il faut ñu baal a may nag. waaw dafa lu la neex waaw a na ataay a ay ah, yéex ah, naan yow. Touba gaz li tax mu neex ma. man lu am Touba daf ma neex. a tey fi la lu am Touba rek man daf ma neex. man ngay wax de. waaw man gaa yi ànd ñoo bëgg. Nguuda Ndiaye. Nguuda borom fële. gaawal gaawal oh, ñaari tali. kii mooy doomu Ndeye Mari yaayam maag yaayam a bokk ndey ak baay kii mooy sama jarabaat. yaayam a bokk. Ndeye Mari Cuun a ko jur. Ah. Ndeye mooy taaw la dëggeen Sàmb. yow Ndeye Mari Cuun lu ngeen bokk benn nday mooy sama taaw yaay moo namp jox ma ma namp doomam a ngi Ngouda Ndiaye. Ngouda bu baax la bu baax waaw waaw waaw seen tur kaa wul fi. waaw Papis ñëwal. Ah, keneen ki kan la. koo kan la petit. petit kaay. tey Sidi Ablaye Ndiaye. yan booy Sylvie Sow leen de. mënoon ngeen ñoo par ñu tudd seen tur yi. Modja. booy yow noonu la ñu leen di soxla ci sol loo yor cung yaa yor cung bi yow Modou Lamine. cool nañ ko. wala xoolal Lagos waay cung. léegi léegi. cung booy Cees gi de. waaw booy Cees nga moom ba <laughs> may tëgg sabar ba tey xam nga ñun xam nga ñun luñ ko tuddee. Hmm. ndax lan loolu. kii ba ko sàcc ba fëggee. sàcc bi ñëw di ko daj muy mu rusa yuuxu. loolu de mosuma ko dégg. ndeer la tëgg ca biir ne ba. sàcc bi ni pel net. laaj ko daa tàggu mbaar. wuram lan lan lam lambe kitam la. sàcc ba ni pelmet waaw waaw stratégie la. waaw ba may tëgg sabar ba léegi maa moom. mbooloo eh, bi daje na trois heures du matin ci biir kër ndeysaan loolu day dàq sàcc. léegi li ñu njëkk a def. loola neex. ceebu jën bu ñu doon waxtaan. ah waaw tàggumaar bu gàtt rek nga dugg ceebu jën. ñëpp maase nag. bu mu am sabar gi bu ko tëgg sama nopp yi de. ayca ñun ay bulon kër gi yëngu na de. waaw lu tax lu tax salaam jooy. salaam tuur na nga jooy lu tax Arma fecc. nga jooy. ndeysaan sama jarbaat la. waaw ndeyam dénk ma ko. waaw maa ko njëkk a dugal avion. waaw ndeysaan te xew na. mën na li muy def Arma mën naa ne mu dàq fecc Sénégal. ndeysaan euh, saa ki du tànqam lu sama dara. saa yi ma tëggoon ba pare waroon na dem tëddi nelaw mm. dépense may jox sama yaay moom mu ko doon yóbbul. xeex na ndax man. xol la fecce. bu feccee xol ñii. xale yi mënuma leen fay kajaa mi faatu mi. kii mooy sama caatu yaay. man mënuma ko xool dama ko rus. kan ci saa bu ko xoolee sama. kan kan kan Mamadou Lamine mi. oh xoolee rek. ndeysaan ndax dafa nekk sama caatu yaay. nekkoon sama sama sama xaritu yaay. ndeysaan woon sama yaay lool. te moom tam musuma bàyyi. ndeysaan Mamadou Lamine Fall mii. goro ko mën aar aussi. lii goro ko mën tëgg dafa metti da gis tëggkat sabar boo xool loxoom day wow koŋ. la ñii tey bàyyi seen yéene lu ko. ñii di naaw fecc dafa metti fecc gone koy def xale koy def donc ñii mënu ma leen fay. luñ la defal rëy. Lamine Naar mële Ndeye Mari Ndiaye gaaw la mooy yaayam. un mois avant yaayam di gaañu la ñëw jour boobu xamal na dama ne tey restaurant laay invité sama yaay ñu ànd ñoom ñaar maa ngeeg vidéo yi keroog yaayam ni ma salaam Diallo. dénk naa la sama doom ji. yaayam mu waaw Ndeye Mari Ndiaye. waaw mu ci dëgg ñëw ci fen ndeysaan donc xale yi man mënu leen fay mooy xale artiste Sénégal ku ma ci dem sax dem seet la sa soirée doo ma sax gëmee loolu dama koy gërëmee yàlla bu baax. ndeysaan walaay dëgg la sunu borom bu baax. walaay dëgg la alhamdulilah. walaay dëgg la walaay dëgg la. Ah, saa kontaan nañu trop ah salaam. parce que lii defe naa ne waaw ndewenal bi nga jox Sénégal. te defe naa ne lii tamit yow tamit yéene nga ko defee ni sa yaram dawee noonu la suñu yaram dawee xam nga yow daw sa yaram ñi dañ laa ñëwal defal la yéene yow ñu nit suñu yaram daw ndax da nga ñëwal ñëwal ñu ak yéene tamit taw bi ci taw bi aussi loolu yëpp nga def ko kon ñu ngi jugee ci tabaski nii nag salaam mais mais mais ah, waaw xam nga nit waaw ñuy jugee ci tabaski wala baalu nit ñi àq ak yooyu waaw waaw ñu man nañ ma baal naa parce que man aussi moom dafa xaw a waaw yéen yam yéen moom moom vous êtes léegi. ndeysaan <laughs> oh. nit dina bëgg benn affaire. ñu ko ci saaga di ko ci xas di ko ko xeebal. Hmm? te xamuñu mbir moomu nu mu toll ci moom. man waxuma ni Armand Fecce ah. waxuma ni ni ñu tëggee. parce que ku ci nekk ci ñoom maa ngi lay xool surtout kii ah maa ngi maa ngi leen di xool. parce que man noonu laa mel yéen xam ngeen ko ci man. xam naa ni xool nga defee li nga def. mais salaam fii mu toog. man leneen laa gis. que ni moom sabar jaral na ko bu xiifee sabar dina ko suural. ndeysaan bu maree sabar dina ko màndil. mais dëgg la waaw lay sabar dina ko solal. en grosso modo salaam sabar da koo doy ci lépp. parce que da gis ni rythme. rythme rythme laa da waaw bi bi gars yi di tëgg sax dugg na ko dugg boo xam ni. il pouvait plus se contrôler. loolu lan la après ñu dugg ci affaire loolu. lu ne ci yow la lu inné la. Mm-hmm. xam nga yow saa boo nekkee sur scène li nga ma laaj ni yaa gën a xam. Mm. kenn dootu la xàmmee. sànneex mi nekk sur scène ak sànneex mi nekk ci mbedd mi. ça fait deux. te lii ba nu nekkee xale. ba tey xam dëkk ci koñ ñu naan la waaw ki ngeen di foo li ngeen di def du dem. Mm. nga nekk téye sabar ba loolu tey may la loo yóbboo sa ndey màkka. Mm-hmm. Mm. du ay foo du ay caaxaan. ba pare xale yi di ko def ak fulla ndax ma dama ko mës a fonk. sama sama tëgg man demewuloon noonaa bi may tëgg. mais demoon naa ba Ndakaaru Njaay man rek maa fiy tëgg sabar ngénte yi takk yi lépp mais ma teg ko ci bëgg aar ak fulla ak fayda mm. tey loolu ma may tey li ma li ma am mm-hmm. donc su ma gisee xale yi di ko tëgg ak fulla ak fayda damay kontaan ndeysaan xam ni coono du réer boromam ma mm-hmm. ba ngeen fii théâtre mm. kii naan sàmm ngeen di naan soow ma alaaji waaw saa di yëg ci garab gi ndeysaan loolu tey moo indi lii Sanex mii premier bi muy ñëw Dakar di ñëw sama so am na soirée boo xam ne Amérique laa jógee la nekkoon sama possible dama ko battre. ndeysaan ndax kontaan ndax beeg man damaa bëgg aar. li ngeen def nii sama yaay lool la doon def sama yaay ja dama ne tey la nekkoon daayira coach. Mhm. am na ko lool nag. waaw mhm. pièce théâtre yu bëri yoo xam ne sama kanam lan ko def nii. waaw RTS am na ñoo xam ne ay paa yu retraite dañ doon yow sa yaay daf la doon boot bu jouer séquence théâtre daf ñu lay dénk fii ci régie bi. Ah, ndeysaan donc loolu. lu ma nàmp la deret la deret la. loo nàmp nag ak loo nàmp du benn. lan wax nit ñi gannaaw ba nga xam ne nag ñu xam nga affaire bi yóbbu nañu ñu waa Sénégal àq. Mhm. te ñu ñun ñu war a baalu waa Sénégal àq lañu. dëgg la. fépp sénégalais nekk ci àdduna fépp fu jullit nekk ci àdduna ñu koy balu àq di baal ñëpp àq ah, lépp lu ñu gis ci émission bi loo xam ni. Euh, wax nañ ko fi rafetlu wuñ ko wala wax nañ ko fi gaañ nit mm-hmm. wala wax nañ ko fi kenn ñaawlu ko ñu ngi jéggalu ñëpp mm-hmm. yàlla na yàlla topp xol yi defal parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xool ñaar mm-hmm. ah, lan ngay xaar ci Sénégal meilleur bu ñu un Sénégal meilleur mm. yow salaam Diallo lan ngay xaar ci un Sénégal meilleur ça waaw dama lay rectifier ci li nga wax waaw yéen nit ñi dañ leen war di ñaanal waaw yéen mais sànni xëy na mënul ñàkk mais mais mais mais yonent bi sax. bu wàccoon ci suuf nga gis ku ko opposé wu. Mm-hmm. yàlla la même chose. Mm-hmm. mais yéen artiste yàlla rek moo la mën a fay kenn mënu laa fay. Mm-hmm. ndax li ngeen di dégg kenn du ko dégg. li ngeen di daj kenn du ko daj. saa yooyu lañ jógee. yéen a ngi wut neexal doomu aadama yi ak lu bëggal doomu aadama yi ak lu bëfal doomu aadama yi te jamono bi senegal lii la soxla. actuellement Sénégal lii la soxla. soxlawu ñu leneen dul lii. li ñuy ñaan nag mooy ci sama tur rek salaam. jàmm la paix. waaw salaam salaam yaa salaam. am yar yéen sa bopp jàmm yéen ñëpp jàmm li nga yéen sa bopp nga yéen ko sa morom. ndeysaan dëgg la. bàyyi saaga yi bàyyi sànnañ te xeer yi politique. Hmm. ak concurrence hmm. am na. Hmm. waaye ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Sénégal benn bopp la kenn sa mag ñu baax ñi dañ fee def lu baax ñaan ko fi tëdd te fi nu tëdd kenn du ko yàq sa wax rafet na waaw dañu war a defaraat suñu toogaay defaraat xel yi defaraat xol yi te yaru yaru lu am importance la ci réew. lu mu la mayul da dara du loo ko may. yéen yéen toujours yéen a ngi yar. toujours yéen a ngi defar. waaw man yenn saay su ma amul jot damay dugg ci YouTube bi. mais tàppe ngonal damay ree ba bëgg a dee. damay kontaan rawatina ba la koy def sax gars yi di xalam. waaw. muy gis Thierno muy xalam. Mm-hmm. ba ndam sunu maam yi li leen mm-hmm. Alibaata da doon toog Ablaye Naar Samb mm-hmm. ah. Euh, Samba Jabare Samba Jabare ñu daal di foddat xale mi daal di wax ñëpp daal di defaraat seen toogaay mm-hmm. ñu xawaare waxtaan kat Youssou nee na waaw ah. uh-huh. fu ma tollu dama koy wax wax man daal xam naa ni wax musuma marqué ni wax boobu te bi mu ko waxee ba léegi dama koo seetlu mm-hmm. waxaat na ko ci conférence de presse am keroog France nee na ku deful jàmm doo fi am dara dëgg la mais dëgg la dëgg la ku deful ci réew mi jàmm waxoo ko fi doo fi am dara. doo fi dara te billaahi dëgg la. mais dëgg la yàlla lakka boo nekkee ci réew. defoo fa jàmm waxoo fa jàmm. doo fa am jàmm doo am dara. dëgg la Youssou Ndour moom bilaay dëgg la. kooku moom ku yabu yéen ko jàmm. ndax fi la juddoo yaroo fi màggee fi bis bu ne. nga dégg ko ko tooñ te mosoo dégg mu mu mu tooñ. muy grand day wax yooyu. Mm. li ko ñor toujours mooy li doxal réew mi ak li indi jàmm ci réew ñun moo nu yar. salaam fii nag téye kaas amu fi da naan delloo. waaw Ndiaye waaw waaw El waaw waaw. dama bëggoon ñëw si. Uh-huh. Sidi mi mu àndal mu xew loolu ah. lii lan la ni yow. Sidi yow booy bu gaaw a fuuy nga yow. waaw booy bu xew nag. yow jënd génne ko album di muucu kaas. yaa na kii yaa ngi muucu kaas bi kii de. ak booy bi. non flèche ah, na dëgg wax na dëgg wax na dëgg waaye ngay tax ah, ma ruuf la nii la ñu naanee flèche nga ne booy bi booy bi dégg naa day feesal saara ba booy bi moo way kuku sinap kooku seen xew na. moo way Cheikhouna ak Zozo. ak Zozo ak Sumbulu. salaam nan nga encadré booy bi. kii dama. non non non non sama yaay na ba Fall. waaw yaayu ndongolo. waaw moo ma dénkoon ndongolo ak Ablaye Seye ñoo ma ko dénkoon. ndeysaan ndongo mi defe naa bokk naa ci ñu ko fi njëkk a jox mu way ñaaño bala mañ see ku weddi na ko dégluwaat. waaw dëgg la seen yaakaar tas ñu sante ko yàlla ci ndongo. ñu jël xale bi ñëw teg ko sama loxo. ñoom Iba Sey ñoom Iba Sey waaw ñoom ñoom dañoo baax ñoom dañoo mën a jàppale artiste jour bi nga xamee ni maa ngi tëgg booy bi ñëw sama soire waaw am na solo de parce que man booy boo ñëwee ci kaw soirée bi di bëf damay tiit maa ngi gërëm ñoom Jules Guèye waa Nokos Band ñoom ñoom ñoom ñoom Cheikh Diakhaté ñoom Thierno ñi mhm. mais booy bi bi mu nee der man sama boobu dama doon lox benn wooyu Njaga bay nanga nga ko woyati woon coow li coow li léegi mu leer te na ba noppee <laughs> leer na ba noppi ndax Salam Diallo mi lëmbe réew mi ma saafu du léegi mu leer booy booy xaar xaar xaar. dama lay ñaan nga kii kan booy kii du seex yow booy seex a ngi. mais booy ceeb sax daa ngi mel ne ku demoon bànko. waaw booy yow diggu seegoo sax tuur ndox mi. comme nekkoon neex na de. ah kër coow li la ñëwaat. coow li la ñëwaat coow li kay tuur ndox mi la. xam nga saa booy yi nga xam dañuy reprendre woy américain yi. waaw waaye. ak woy ay nigérien. waaw yow seex loo def nii. dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi woy fi lu rëy. dëgg la Ndiaga Mbaye Youssou man samay acoustique. wala jaar ci Ndiaga Mbaye oh, oh, mais mais Sidi dellu fa. Sidi nga ne non non xaaral ni muy woyee affaire bi. Sidi yow yàlla yàlla yow yàlla. Ndiaga Mbaye ñëwaat Ndiaga ñëwaat. est-ce que Ndiaga Mbaye dekki waa juli juli léegi mu leer juli juli léegi yow la ca pindu teen bi arma gaaña amul baag la am nga baag teen baawal ga ñu soxla yaa jarawoo ak bubu kumalabe kumalabe kurajaliya idi leyti ngalanka amaat Ousmane suku pate sambala ganjul leen Youssou Youssou Ndour lu mu wax Youssou Ndour a man a way ba mu waye lu mu wax dafa ne gesal àdduna kenn mënu ko dajal boo dul umpale dañu lay ragal waaye faaw nit salaam am lu muy desal ngir mu ëllëgee ñu man laa seetal waaye fu ne nga nekk jël laminaar laminaaroo ah, eh. Sénégal aw problème Demba Ndiaye sa yaay. Demba Ndar doon ko jël ko mën na la gëboon Amadou Ngoñ la ko jël tey kenn ngoñ ngoñ daal woyaan ku woyaan mu dab nangu. Maria Sine may sa maar aju naa ma ne te doom lan ka defa njiinoo njiin njiin farama réer latti jol juri sa diggen mbaay. Wally Seck Wally Seck lu mu wax Maria Sin may sa may sa bige Maria waaw ajum naara nga des ndoob ja des lambaay you know jin from Maria Wally Seck nee na Wally nee mbay fee mbay fee ma ne ko waale waale kooku jaaga mooy yaay ja layla laa waaw da baax sa diine màgg na la dëgër la ñuy sa yaay salaam jàllo iba sëy mooma boole woon ak yow xanaa xamuloo ni lii màttu bu la séenee daw yaa jàppale Kéba yaa jàppale Moussa Diouf yaa jàppale Daba Sëy yaa ma jàppale la la la eh. salaam Abdoulaye dara dara dara dara baay fari yu li ñaalu gi na ko dan jël ya booy la daganay saya naa mooy sa maam sire kumba la be bu kumba la be yaa ji booy taalibe sëriñ Saliou Mbacké borom jàpp na la xabaan jërul yaay borom janatuma xwa borom ñëwaan nga ca ron faiga le le way ne lu baayu waale balaago moo fi wayoon ne John John lu mu doom sàddi mu lay xool sa yaram dawul nga wan gannaaw mu jooy sa yaram dawul itam ëllëg bu dee fa yóbbal daway sama nay lu mas doon sa yaram dawal nga woon ginnaaw mu jooy sa yaram dawal yéen doo xiif yéen doo mar sa yaram dawal jii doom ëllëg bu dee fa yóbbal daway sama nay laxaf doog taat bi mu lay xool sa yaram dawal doo xiif yéen moo maar fa yaram nawul kii doom ëllëg ku dee fayeekul nga way sama nay njukkal mu ngi tudd Iliman ku ko yóbbu màkk dina dem ki moo dàq toogal ah. ki moo dàq tëgg tama la joxoon bi kii dama amoon benn tamakat tamakat bi xaar ba mu wor ma waaw ma nekk benn ngénte dégg li muy wax ma nekk benn ngénte hmm. ma ne waaye fan laay jëlee tamakat jékki-jékki rek benn oto romb ma xam naa añu njëkk yi la doon yóbbu moom ni <laughs> tama gi naa takkan rakkan rakkan rakkan ma ne ay kii kan la boo sa tamakat da laa war <laughs> ah. ca guddi ko man ko saa waaw da nga def waaw man ko mën nga tëgg orchestre waaw waaw man ko tey luy tëgg sayel mun ma d'accord dinaa ñëw. mu ñëw vingt heures mu dem mu dem. gardien gardien ñëw ngoonal vingt heures ba ban a nga waroon tëgg deux heures du matin. minuit laa waroon ah, waaw ah yàgg. ki yàgg na fi tey de ki teel na ñëw de. vingt eh, heures la ñëw tey de. mooy Ilimane. waaw Ilimane yow da ngaa tàmm teel a ñëw. xam nga man damay kontaan su ma gisee samay musiciens du jeu ñëpp damay ndax ñi maa ngi ñoom def nañ 15 mooy tëggalkat tey nag damaa bëgg nga dem waalo ndax waalo waalo yi ñu ngi fi waaw waaw waaw ma ah? damaa toog fee ci biti sànq leen saaga dee may waxtaan ak waa orchestre am bii waaw ñu baax booy asi daf ma woo ma ak yow mii yaa ma ko wax ni ma man daal booy feccikat yi ak tëggkat yi baax gi nekk ci ñoom ëpp na yaa ma ko wax yow Cheikh mm, mm. ñuy waxtaan ndeysaan ci yittey jamono yi ak Armand Mële moom Arma Ndiaye mii. mooy mi doon fecc léegi yëkkati mi doon fecc léegi. yëkkati ñeenti junni ni ma grand. cay ndeysaan am dépense booy bi dafa baax Arma. te xam na ni manqué xam na ni manqué wu ko de. il faut ma wax pour Sénégal dégg ko. dafa baax moom loolu xam nga kuy raam di la boot di la yóbbu. bu taxawee daw ak yow. ndeysaan ñeenti junni yooyu na Arma xam ni dugg na ci sama xol ak man ak ñi ma àndal. ndeysaan xam naa ni it. mënut a jënd radi. yor baax. waaye jënd leen ci nen. ngeen maye nees ko ku ne cap. ndax kontaan gi nga kontaan. yaay gore waalo waalo. demal waalo demal waalo nga tabaski lan nekk. Oh. gaa yi lakk nañ yàpp yi. Ah, tabaski lan nekk. gaa yi lakk nañ yàpp yi lan mooy tabaski. laminaar kaay. laminaar ñëwul fii moo ma métti. léegi ñëw leen sabarkat yi. ñu def léegi ñu def. non dañuy woy ci tabaski rek. sama xarit la. tabaski xawaare ñun ñii ak orchestre bi. Eh, tabaski léegi eh, man damaa bëgg a laaj booy bi benn affaire. est-ce que xam ngeen kii ñëw leen. booy Lamine waaw Lamine xam ngeen kii. waaw laminaar laminaar. laminaar. cim. ak a nekk sama xarit. nice ne fu ñu jëm non non dañuy def orchestre. Ah, bu ndaw. waaw bu sew. waaw ah, yow booy. man de dama fi laaj. Ah, man daal laaj ñaa fi benn laaj ñetti yoon ñoom ñëpp kenn wuyu ñu. ma ne leen ku leen joxoon billet màq di ngeen dem. kenn ana ma wala Lamine. duñ dem màq dañuy ku leen joxoon billet. booy yow yaa fi woy Seexu Seexu naag Sumbulu Zozo bi. waaw lan moo lay inspiré ba nga ba nga nga woy morceau boobu booy. te dégg naa da ngay feesal aussi fële. waat bi booy bi daf ñoo war a fay. waaw droit d'auteur ndax. loolu tax nga wàññi lu tax nga wàññi lu tax nga ñu la ko loolu lañ lay laaj. waaw am ñun ku jóg waay. balaa dara maa ngi nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal. nuyul bu lan bam ne. di nuyu àdduna bépp di nuyu sama waa dëkk Tivaouane. gi ma gi ma jugee. barki Demba Ndiaye laa doon gis seen dëkk Sam sa Prestige Thiès. waa yëpp ñëw fekk ma fa. feesoon ñu bari dañoo ñibbi ndax dugg ñu. Thiès dañ kaa ma leen di bëgg waale. Eh. kii nag Salam Diallo mënuma fee toog te duma ko gërëm ndaxte benn yoon la woon muy tëgg Nirvana ma ànd faak euh, turandoo yaay jeena ba Fall waaw ñëw woy eeru Njaga Mbay bii mm. ba ma ko woyee boobu ba léegi mm. ah jigadiwu ma ba ma àndeek moom ba léegi wax dëgg fa neex yàlla lu mu def boole ma ci way naa ko ci benn way ne ko Sëriñ Saaliw dalaa defal loo xamut ndaxte ñi nga ànd ak ñëpp suñu borom teg na leen loxo may ñaan yàlla na gudd fan lool te woy Cheikh naak sumbul bi nag dama inspiré wu ne pourquoi pas woy bi dafa série bi dafa tolloon foo xam daa neex ñëpp te nit ki boo nekkee Sénégal di xale di jóg dangay ngay xool li neex nit ñi nga di ko woy série bi neex nit ñi ma inspiré wu chéri booy sama mbëggeel ci yow nan dama ni chéri booy sama mbëggeel ci yow daaraw bu cheikhu naa ak sumbulu jaratul may wiiri wiiri nekk ak yow dina ma neex ma ne ko soxlaatuma duubul fii ndaxte xam naa wareefu sëy jarul wax abaa ca yendu leen nañ ko dund booy entre nous wax naa ko Pape Cheikh gàngi général mbëggeelu booy bi maaj loona ma ma ne ko budul woon ak faa bañ a Euh, xam nga lu ma jàng ci woy bi. Neymar kat yi ñëw na de Neymar. alaaji xam nga woy na. ne wiiri wiiri. kii double vie boole na waa Sénégal yëpp wane na ñoo bokk ndey ak baay. ay café avec. boole na Sénégal yi wane ne population bi moo ñuy intéressé. dëgg nañ def lu leen saf rek ak ñoom parce que li nga wax fi yëpp. dafa nekk en rapport direct. bu ci booloon ay Jojo nag booy yemal ci Seexuna ah? rek. mais woy bi dégg ma ci Jojo booy. Jojo non non. continue booy. yéen kay da ngeen war a yëkkati xaalis rek jox ko. léegi booy yow yaa kon salaam. booy yaa war a génn fii. waaw. <laughs> léegi maa ngi gërëm sama bambara. waaw ñëw ci kii ah oo ko moom kii maa ngi moom ci la. da doon téeg xalam moom ñu jël rapide. dem ba côté golf boobu golf bëriwul kii. <laughs> bu garaaw mais nag boobu yéen nag yéen ñaan yi lu garaaw lu ngeen di kotante. man kay mën naa wax xam naa lépp xam naa li bambado bi xamal na la lu bari. buñ bëggee ma wax léegi lépp xam na ku nekk. li ma la xamal day salaam nag salaam nag tey lay lépp di leer damaa ma xamal. wooy ma loo bëgg ñu musique. léegi boo ma waxalee ba pare ma waxal man waxal ma dañuy musique. waaw ata waxal dañuy musique. dañuy eh, oh, oh, xawaare may ma may ma may ma salaam. Euh, gis nga golo daa demoon jëndi seetu. dëgg loolu boo jëm mu ne ko damay seetu mu ne ko xoolal xool ma rek boo xoolee. dëgg loolu ma wax la. Sadia waaw waaw woy bi yow laa ko may. gaa yi ne daal ànduñu si li nga wax bu ma la na ñaareel bi nga wax naan nee na awa saf ñaareel safu ñoom loolu la gaa yi wax ay kii yooyu bu fi wayte ñaareel loolu la gaa yi wax duñ naan deuxième la war lañu naan yow doo a deuxième yow alaaj man naanoo fi woon deuxième fot ba nga bàyyee deuxième laa bàyyi deuxième waaw <laughs> ma lay laajee di xar yo ba ñaanalante keroog ci bis ba arma ku la tooñoon na ko baal rey lekk ba ataaya balante àq Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar li wóor tabaski waaw ba ñu rendi xar yi ba ñaanalante keroog ci bis ba ku la tooñoon na ko baal Mourtada Mbacké bilay ku tabax gi waaw waaw ñu di xar yow Cheikhu Gueye na ñaanal keroog nga gis ba Cheikh mu la tooñoon ne ko baal ay la Coulibaly ma jigéen duur te bëgg a duwoo ko bilay li yow ku tabax di xar yow Cheikh ba ñaanalante Cheikh Gueye këram jogif ba ku la tooñoon na ko baal Saniya Gueye Gueye Ndioro mu am wàll jaar wax loolu baax Saniya tey ngoor suba ngoor yow la ñu yaa baax ko tabaski joti waaw ba ñeereer ni xaar yaa ba ñaanalante amet ko banna këram jogif ba alo loto ñun laat na ko baayal Sandiara fi nga jàpp foofu baax yàlla yàlla ko safan Sandiara baax ee eh, bu tamas gi juddi waaw ba ñu reen i ba sey ba ñaana laate Dila doo seen morom bu tàmba fi ci bi waaw ba ñu leen di xar yë ma ñaanal la bërëb jo bis ba bu la tooñoon amees na ko baale Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye saf Sénégal saf Amérique saf àdduna bi Cheikh Ndiaye yaa gore bu tabaski borom ca bis ba ku la tooñoon na ko baal sidi dama bëgg may wayal nga mi may wayal bëgg nga wayal ma Youssou ma jigéen Ndour Maria ma ñaanal la kalaam keroog ñu bis ba bu la tooñoon baax soo Mbàkke dañ ba mbay sa maam Mor Fuuta Taal ay sa maam Cheikh Mor Fuuta Taal jàmbaarul Islaam kan maam ja Mbàkke la sëñ Ba Sambay Mbàkke am na maam ju naan Cheikh Mor Fuuta Taal jàmbaarul Islaam ah. tey mooy sëñ Babacar Si borom bon kaar bi jàppati Samba Naar Diana Samba Naar Fra Michel Sambay Naar ki wax naan su ma rusuloon sama baay ku ma foo ci foto ma la. sama waa day daanu de. la koy naa ko Farida la. Cheikh Saliou Mbacké. waaw li muy woy da koo mag quoi en fait. Cheikh Saliou Mbacké. yaakaaru Cheikh Amar. Cheikh Saliou Mbacké borom jalatul maxwaa borom jàppul ndal borom muur bàyyi sëñ Cheikh bàyyi sëñ Moustapha Saliou soxna Asawaalo góor ga ca Touba daawul def bàkkaar xamul bàkkaar bàkkaar xamu ko Serigne ku mu teg loxo gënul ku mu tegul loxo yaakaaru Cheikh Amar bàyyi sëñ Charles Amar mi ñuy jooyee toon na peggul sëriñ sëriñ sëriñ ni sëriñ sëriñ Salim bu la gis dem waar kooku mooy borom jurul borom ñàpp ndaal xambaan daaroog la nga waaw doomu nay Cheikh Gadiaga kookoo defar sama bàyyi ja kooku mooy yaakaaru mooy borom njowaan nga xayi ga kooku la dem na nga mel salaam yàlla dégg la dëggan sa yaay la la ñuy jox attention Serigne Saliou Mbacké la bu leen di dégloo xale yee Abdourahmane Fall tilaala tilaala tilaala Fall Abdourahmane Fall tilaala tilaala tilaala Fall Abdourahmane Fall tilaala tilaala tilaala Fall yinawoon Fall tilaala tilaala tilaala Fall Baye Saliou Fall tilaala tilaala tilaala Fall Abdourahmane Fall tilaala tilaala tilaala Fall Baay Faal